Damani, les boys là quand tu les voyais jouer tu sentais Danemark, qui sont crispés. Il y a un problème réel. Contre Pologne, on n'a pas fait un match complet. On a fait un match où on était en place. L'équipe du Sénégal a toujours subi même les éliminatoires de la Coupe d'Afrique man damay wax ma place damay wax li am. Hmm. au Sénégalais wax on a une équipe bu nga xamni dañ lay conservation de balles, bi la koy et là, mënoo ko def gagner et un vrai projet de jeu. et on attend ce contre attaque pour jouer sur ça. ou bien donner à Sadio Mané qui essaye de d'éliminer et un Sadio qu'aujourd'hui c'est pas de sa faute parce qu'il faut il faut aussi dire que Sadio peut être carbonisé. Hmm. Sadio peut être fatigué. Moi, je me mets à sa, à sa place. Hmm. Il était carbonisé, il était peut-être fatigué. Le championnat anglais, championnat anglais, coupe de, coupe de coupe Champions League, plus les coupes. Mais même Sadio, mets-le dans une composition où aujourd'hui, il va pas faire les efforts. Mais il faudra avoir une équipe avant tout. jouer Balbi et Sonal Nini. Parce que nous aussi, nous avons un degré. Nous sommes en train de nous faire Parce que nous avons un Balbi. Pologne ñoom ñoo et que li Ray li Sénégal le but qu'on a pris contre contre euh, contre euh, contre les Polonais le but boobu moo ñu éliminé nañu bàyyi wax carton yi nañu bàyyi wax li, nañu nous wax la gars équipe bi ñu am moy l'équipe la plus complète depuis l'histoire du football sénégalais sama baat ci kaw équipe bi bu amé entraîneur mën na dem bu amé entraîneur am ay dirigeant mën na dem gagner coupe d'Afrique Afrique lepp luñ plus def nak Sénégal té gagné wuñu coupe d'Afrique Afrique wala demuñu quart de finale coupe du monde wala demi finale defuñu dara. amul ben entraîneur aujourd'hui au monde bu rêvé entraîner le Sénégal quand même noonu dëgg Sénégal do équipe bu ndaw en Afrique et dans le monde du football ba tay di may waxanté yow amna ay entraîneur ay kilifa yu may wo nan ma non n'est équipe bi comprendre ma ko amé won ba mec chance da nga koy jox ku nek léegi nak jox nañ ko chance dem na montré na ay limitam am nak dañu danañu nañu wax fan lañu ñu bëgg a jëmale équipe bu Sénégal lepp lu mu def tay ji te demul quart de finale coupe du monde wala finaliste coupe d'Afrique defu defuñu dara. aujourd'hui ku dem ñaari mandat amoo dara bayil ñeneen ñi nag am na xamni yalla bind na seen jë dem leen ngeen gagner dellu si. ñoom bi ñu fiy président de la république son excellence di leen jox drapeau bi daf ni leen bu ngeen démé def leen na